centre de formation professionnelle bi nga xam ni moom la ñu dippee NTJ nouvelle type de jeunesse te ay makkaanam ñu samp ko foofa ca commune Tivaouane Peulh ñàgg bootu nag ci benn mouvement associatif boo xamante ni ji li ko tax a jóg rek mooy jàppale ndawi gox yi nga xam ni dañu teel a bàyyi li nga xam ni mooy jàng rawatina jigéen yi. ci samedi ji nag tombeek ñaar fukki fan ci weeru mai bi ñu nekk dem nañ fa fekk fa kenn ci ñoom di wuyoo ci turu Mati Cuun ñu gën ko xam ci Tima traiteur mu amel benn journée spéciale culinaire boo xamante ni ji daf ko fas yéene présenté ñi nga xam ne ñooy public bi. bañ fa yegg ci si suba gi ci booru 11h fekk nañ nag mu préparé li nga xam ni mooy première phase bi jëm ci ndékki li ànd ceeg ay nattangoom étudiante yoo xamante ni ji ñoo ko doon jàppale ci liggéey bi. ba de li jëm ci ndek li ki di Tima traiteur présente nañu ay recettes yu am solo taw wuté lu ci croissant fataya madeleine beignet jus ba ci ay dessert te mu défar ganaaw saga nag ba nga xamante ni ji def nañu li nga xam ni mooy waaj li jëm ci wàllu ndekki loolu moom it eh, yëkkati na ay kàddu jëme ci li nga xam ni rek moo waral bis bi nga xam ni amal na ko foofu ci centre bi ngir mën ko eh, feeñal wan ko ñi nga xam ni tamit ñooy publik bi. Euh, sama café bu ñu waaj a suñu ndekki rek mun naa jël trente minutes defar surtout cake tamit dafa métti pour defar ko en même temps parce def sa mélange après nga xaar dugal ko si pool bi diw moo yeeg dafa métti monsieur Diop ataaya moom tamit tamit la tamit benn même chose neef bi tamit xaw naa métti parce que da ngay toog nga xas affaire yooyu day jël temps kontaan tamit tamit bu ko defee ma ñëwee rek ci ma lan doon ñëwee tamit parce que xam-xam moom foo ko munti wuti jee rek jar na ko surtout milieu bi ma nekk boo jàngee ba yaakaar ne pare nga saa yi boo xëyee gis gën a gis yeneen modèle toog toog moom à chaque fois loo gën di dem da ngay gis ay changement moo loolu à chaque fois da ngay jàng di gëstu di xool pour nga xam ne à chaque fois foo dem buñ la joxee benn kii doo sonn daal luñ la joxee da nga ko mën a maa ngi kontaan trop nag si ñoom école wax dëgg yàlla ba ma ñëwee tamit lu ma doon wut gis naa ko fi tamit macha allah sama xel dal na di leen remercier sama directeur yi ma fekk maa ngi ak ñun Moussa yi ñun ñëpp maa ngi leen di remercier ñu baax lañ damaa ñëw ñu bëggal ma seen bopp élèves yi tamit même chose tema tema xale kese la de mais wax dëgg yàlla dañ maa jàppale yéen ma soutenir ma maa ngi loo wax rek ñu la nuyu loolu tema di kiiwee rek lay wër monsieur bi ñuy jàng tamit macha allah moom tamit macha allah dafa meilleur wax dëgg yàlla lépp li nga xam ne réeróo na si pâtissier bi ma ñëwee tamit fekk naa ko waaw kontaan tamit leen di remercier bu baax baax dafa gis si liggéey bi bi tamit dafa métti mais ngi si jàpp macha allah maa bu baax a ma leen di conseillé moom ñu def yaa ngi comprendre ñu jàng tamit toog moom dafa métti damay dégg ñu naan toog dafa yomb yombul de hygiène bi lañ si njëkk soxla parce que toog dafa laaj set jigéen boo setul doo mun a toog même góor set bi mooy premier parce que fépp foo dem rek li tax ñu lay respecté avant tout bu ñu defee programme set bi ñu xool dafa laaj loolu maa leen ni conseil tam ñu dem liggéeyi tam parce que jamono ji ko amul métier perte na te pare en même temps bu ñuy dem tamit nañ ñëw tamit fii école bi macha allah boo fi ñëwee tam ni nga bëgg yëpp tige yi macha allah boo ñëwee tam li nga fi war yëpp di nga ko fekk allah tamit dinañ la jàngal cuisine jàngal la pâtisserie mois doo nga koy def. Mhm. génn ñu jox ko diplôme d'état mhm. attestation rek dem la lañ organisé benn concours fii national ñu jël ñu sélectionné ñu yóbbu ñu première bi fi génn troisième bi fi génn man mi taxaw di wax man maa bi mhm. waaw macha allah maa ngi leen conseil pour ñu ñëw si école bi diplôme d'état di entreprise liggéey jàppalante xam ne loolu rek moo ñu tax a jóg te loolu moo ñu parce que dëkk bi day gën a métti te jamono jii nii boo amul métier muy góor muy jigéen da ngay perte te à chaque fois lekk moo amul perte ma Sénégal moom foo munti dem boo génnee da ngay lekk lekk rek ngay wax di nga xool resto en même temps lii dafa dox pâtisserie bi moo gën a dox waaw maa leen digal tamit ñu jàng ko daal parce que am na sens trop mm-hmm. amul perte ma boo amee jëkkër tamit même bu fekkee demoo a di ko mën a defaral préparé ko palaaj gannaaw ba mu daanalee ay kàddoom nag ñi nga xam ni ñooy ay nattangoom étudiante tey di ko jàppale ci liggéey bi jël nañ fa ay kàddu ku ci mel ni Mariam Ndiaye étudiante à la sixième promotion de l' année 2023 mille foofa ci centre NTJ ak Astou Ndiaye étudiante à la sixième promotion de l' année 2023 fii moom métier bi amul amul perte parce que togg moom jigéen bu ko mënee rek du perte ci yow voilà te fii moom ñun ñëpp benn lañ doone yu famille NTJ bi fi ñëwee ba tey gisuñu fi dara lu dul xale yi ñuy jàngal comme ni mu ko waxee comme aussi mi ñuy jàngal di ñu conseil en même temps nii ngeen doxalee nii ngeen di defee te formation bi six mois la boo attestation ak sa diplôme d'état. maa ngi tudd mhm. maa ngi mhm. étudiante en restauration pâtisserie. Mhm. Euh, chez l'école NTJ qui signifie nouveau type de jeunesse. Euh, j'aimerais d'abord vous parler de NTJ. c'est un mouvement composé de jeunes. Le président qui a créé ce mouvement est un jeune ainsi que tous les membres fondateurs. Donc nous, la NTJ prône pour le développement de notre cher pays et aider les jeunes afin de subvenir à leurs besoins. Parce qu'il y a des jeunes aussi qui veulent réussir dans la vie et qui n'ont pas assez de moyens pour réussir. Donc NTJ est là pour les aider, les accompagner jusqu'à leur réussite. Il y a beaucoup de modules y compris la restauration pâtisserie. Et aussi, il y a des modules en informatique. Actuellement, on prépare aussi une formation en agro-ressources et agroalimentaire, soi-disant la saponification, les, la saponification, la cosmétique locale, comme les huiles de massage, les huiles capillaires et tout. Donc, on est en route sur cela. Moi, je suis Astunia et je fais partie de la cellule de communication du mouvement NTG. Donc, j'aimerais aussi vous parler de mes collègues qui sont de très braves jeunes, aussi notre professeur qui nous encadre et aussi ses conseils à viser plein d'enseignements et aussi Adima qui est une femme battante parce qu'il n'y a pas longtemps donc, que je l'ai connue, mais elle me donne beaucoup de conseils. À chaque fois aussi, elle me dit qu'il faut tout faire pour réussir dans la vie et de ne pas dépendre de personne. Elle se bat aussi pour sa réussite et aussi elle souhaite le meilleur pour tout le monde. En ce qui concerne cela, moi je suis satisfaite parce qu'on a beaucoup, formé beaucoup de jeunes. Actuellement, nous sommes à la sixième promotion. Donc, euh, je pense que ça, ce n'est pas petit. Donc, euh, nous sommes satisfaits parce qu'à chaque fois, ce n'est pas obligatoire, mais on fait de notre mieux pour trouver à chaque promotionnaire un mhm. stage. Mhm. Mais le travail aussi n'est pas, n'est pas promis à 100% mhm. parce qu'on peut t'envoyer faire du stage. Mais pour avoir un travail, il faut le mériter. Dans le secteur où tu as suivi le stage, donc euh, l'emploi, ce n'est pas obligatoire, mais même aussi le stage. Donc, euh, ça dépend. Des fois, on a des propositions de stage via nos partenaires. Après, on pousse les élèves à partir. Hmm. La mensualité, c'est abordable, idem que l'inscription. Comme je vous le disais tantôt, parce que je vous ai même dit que la NTG est là pour aider les jeunes. Donc, euh, c'est pourquoi on a allégé les mensualités, les euh, scolarités. ba tey li jëm ci wàllu doxalinu centre bi ak encadrement étudiants yeeg étudiantes yi ñi nga xam ni ñoo nekk ci bopp école bi di ci addu ku ci mel ni Maguette Gueye directeur de la formation NTJ Pape Ousseynou Diouf président du mouvement NTJ Babacar Ndiaye secrétaire général du mouvement NTJ ak Abdourahmane Tall président de la commission de l'éducation NTJ ñoom ñëpp gën a indi ay leeral ci li nga xam ni mooy soloy centre bi ak taxaw bi nga xam ni moom lay taxawoo ndaw ñi nga xam ni ñoo dëkk ci gox bi ak li ko wër. salaamaaleykum man Maguette Guèye ñëw rek man maay directeur euh, formation bi même même même bu nga waxul sax c'est pas facile quoi ndax tamit euh, gérer gérer ay jigéen dafa difficile surtout nag ñoo xamante ne tey jii dañoo am âge boo xamante ne seen âge moo méngoo quoi ci ci ci côté génération kon ñooñu pour nga contrôler leen wala pour nga diviser leen nekkul nekkul du yomb mais juste ñoo ngi def lu ñu mën. ci côté boobu moom ndax avant tout lu mu leen di wax rek respect mooy mooy mooy mooy mooy tabax kii nii euh, structure yu bëri cela veut dire que tey jii nii boo amee respect rek ci lu ngay domaine bu nga bu nga bëgg ak métier bu nga choisir bu nga ñëw fi waaw pour man warul am complication ndax amour moo la fi indi ki lay ki lay jox savoir bi dem ak ku la jiitee kooku tamit looloo ko looloo ko taxa looloo ko taxa jóg pour man tamit dañuy dañuy dimbalante rek ensemble ndax kenn mënu contrôler kenn ak seen aal bu ñu waaw buñ nekkoon ay xale yu ndaw sax mu leen recadré et tout ça quoi mais ay magum jëm lañu war nañoo mën a luñ bëgg mhm. daal dina dina mais on gère quoi waaw travail la ndax kon euh, nu ko gars yi waxee rek NTZ moom dafa nekk mouvement boo xamante ne day prôné pour le développement te tamit booy prôné pour le développement am na yeneen yoo xam ne nga war a travailler mooy wàllum solidarité ak respect et tout ça léegi de ñu fait ñun ñëpp fii nii ay ay ay gan lañ bu ñu fiy ñëw damay jël kaw exemple ñenn ñëw dañoo dañoo yar woon de telle sorte duñu wax avec eux mais mënoo ñëw di travailler ak say say say say moroom élève nga réservé wu et tout ça quoi il faut tamit nga firi pour travail bi mën a a jaar yoon quoi ndax formation boo koy def pour man warul warul mën a nekk comme genre armée wala dara yooyu noonu quoi il faut tamit nga bàyyi gars firi malgré tout tamit. mënuñu firi firi boo xamante ne tey jii dañuy dépassé euh, ñi fi nekk wala duñu nangoo respecté seen liggéey mais juste envers eux pour liggéey bi mun a jaar yoon ndax lii nii tey jii buñ jubóowul woon kon peut-être lii du am climat moo aaye mais ñëpp ñëw nañu ñi pare formation waa P5 ñoo ngi fi waa P6 bi ñoo ngi fi kon dafa mel ni loolu tamit travail boo xamante ne NTZ def na ko fi waaw ñu ñu leen di ñu leen baax a baax waaw kon nuñ koy nuñ koy faral di di waxee rek boo xoolee ñun depuis depuis promo promo un ba six ndax Babacar mii nii nekk sama wet moom moo yoroon promo un ma directeur bi euh, am na ñoo créé benn groupe boo xamante ne opportunité NTZ lañ ko tuddee juste pour mun see regrouper promo ba six pour ñu bu yenn stage yi wala yenn yenn domaine ci yenn travail ak yooyu noonu ñu mun leen ñu mun leen insérer foofu noonu ndax ñun boo xoolee dañu ni travail accompagné la ñuy def duñ la former rek bàyyi nii nga dem quoi. les former bu ñu former en même temps tamit dina jéem dina jéem am suivi boo xamante ne tey dañu la wutal stage si yenn si yenn localité wala si yenn hôtel yeeg restaurant yeeg yooyu noonu quoi juste pour mun a am entretien boo xamante ne tey jii nii même bu ñu toogoon cent ans gisee wuñu sax bis bu ñu gisee dañu am lenn loo xam ne moo ñu lié lié boobu mooy lan travail continu quoi. maa ngi nuyu ñëpp di wuyoo di turu Pape Seydou Diouf nekk le président du mouvement indigène donc tey ñoo ngi fi pour taxaw kenn ci suñu élèves yi di wuyoo un Trader donc mu nekk jeune pour pour jeune bu neex a taxaw jeune bu neex a parce que des yombul nga nekk moi âge mu am de entreprendre des xaarul dara je crois que objectif formation bi initier initié c'était ça pourquoi nous choisir pâtisserie parce que l'objectif c'était d'accompagner les jeunes filles parce que boo les formation pâtisserie mën nañu les jeunes filles le gënoon concerné pour nous am une diable. maintenant les tax nous choisir pâtisserie moi gis nañ que pâtisserie que na métier pour xam

bi à am délai tout ça donc la satisfaction de ce en plus du conseil les autres les ennemis, nous inspirer inspiré parce que l'autre fois taxaw na fi expliquer na leen donc on jox na leen parcours donc on a leen ne yombut mais parvenir na réussir te loolu la leen di tout le temps donc loolu lañ ciy conseillé. Babacar Ndiaye le secrétaire général du mouvement nouveau type de jeunesse je pense que Gaï, il nous ñu wax dans noonu la parce que formation pas bi li ko li ko li ko parce que. maanaam da ngay remarquer ni jeunes yi fii dina bari jeunes yoo xam ne par exemple ils ont abandonné l'école très tôt ñi quatrième lañ bàyyee cinquième surtout jigéen ñi amuñu métier côté góor ñi sax lay parce que di nga mën génn dem liggéey liggéey doole gagner sa journée ménagère par exemple trois mille fekk ci jigéen ñi donc ci idée boobu lañ pour mettre en place une formation pâtisserie formation boo xam ne da ngay ñëw tu pratique tu tu tu as comme ni ko gars yi waxee on est sous location. Mm-hmm. Ah, mais mais macha allah on on gère yooyu donc euh, côté boobu li ma ciy wax donc daanaka des fois dañuy wax naan euh, ndaw moo yor réew waaye ban ndaw est-ce que ndaw bu amul compétence est-ce que ndaw bu amul benn formation donc li ñuy wax rek il faut il faut investir dans la formation professionnelle pour espérer mm-hmm. avoir avoir euh, par exemple une jeunesse de relève pour espérer avoir par exemple des des des dirigeants futurs qui qui qui sont capables de gérer. parce que formation professionnelle bi ñuy def nii boo fi boo fi génnee tu as des compétences boo amee compétence da ngay travailler yaa ngi xëy di liggéey yaa ngi participer ci sa développement réew nga yëg nga ñàkk yëg donc li ma di wax mooy ñu ñëw par exemple jàppale comme mouvement yu mel ni nouveau type de jeunesse wala ñoom sax bu mënee déployer ay formation professionnelle pour jàppale jeunes yi parce que maanaam réew réew mi tollatul wala àdduna tollatul foo xam ni dañuy toog par exemple yi huit ans di te ba ba génn am maskat nii la loo doo xam loo mën mais foofu dañ toll ci réew moo xam ni boo amul compétence doo dem parce que la concurrence elle est très très rude donc boo amul compétence doo dem beneen bi wax dëgg leen exemple bu ñëw que mooy li nga xam ne mooy jëmale réew kanam en en de la formation professionnelle nii nii NTC aussi dañuy parce que des fois dañuy wax toujours compétence kese kese doyul donc il faut des compétences transversaux donc ñun dañuy dañuy investir ci formation et développement personnel leadership entrepreneurial bépp promotion yi di jaar yëpp dañ leen di initier ci loolu des on organise des de développement de leadership et parce que yooyu moo lay permettre après boo génnee nga mën a valoriser li nga ok donc ci ci côté boobu daal maa di woo ñoom ñëpp ci formation professionnelle parce que c'est c'est le c'est le c'est par exemple mooy euh, mooy pilier bi nga ci bâché woo pour espérer le développement NTZ teg na teg na en euh, peut-être euh, ci biir NTZ la la ci domaine boobu rek lay nekk ci domaine informatique bi domaine technologie bi tuy open la pour tout le monde ñëpp mën nañ participer donc si si côté boobu moom ci travail baax on s'engage des jeunes sur la nouvelle technologie et l'utilisation de l'ordinateur parce que ak domaine boo mën di nekk si tu n'es pas par exemple si tu n'as pas les outils en informatique par exemple da nga di nga di nga sonn di nga avancer mais ça va être trop difficile donc ci côté boobu NDG mi ngi mi ngi mi ngi appuyé wu foofu ci ci ce qui est la la formation asalaamaaleykum

ay personne yo xamné ne peut être à l' extérieur yoo xam ne ñu leen jéem a rencontré pour trouver d'autres partenaires li may euh, actuellement emploi mhm. yaakaar naa euh, li may conseil bu xamné xam lay jox ku ci nekk d'abord bu xaar kenn di ko jël na jëma a def formation acquérir les connaissances yi xamné ne il le faut la compétence après moom mu faire valoir loolu ñu parce que dañu nekk ci monde bi nga xamné compétence mooy demee actuellement mhm. donc nga jàng ngay jàng ba bo ci amé compétence yaakaar naa fo taxaw lañ lay jël mhm. nekkatul euh,

parce que première partie bi nga xam ni ñu ngi ko jagleeloon lii di ndikkili li ba mu ci paree nag euh, kii di tima traiteur ak nattango étudiante ñu ngi àndal ci liggéey bi daal nañuy songu nag li nga xam ni mooy añ bi ci waxtu midi bi mu jotee. niki noonu nag lañu daal di teg seeni bagage fas yéene nag songu li nga xam ne rek mooy plat du jour mu dippeeko ceebu jaga ñu ànd ceeg moom mu indi ci ay leeral. pega laa leen doon defaral rek. ala mhm. Sénégal def ko yëfu géwal nag. nga mhm. traité moom daa wax géwal femme géwal man plat yëpp laa maîtriser. Mhm. parce que tey jii nii boo amee ngénte ceebu yàpp ngay togg tey bu ma la toggaloon ceebu yàpp mbar incha allah boo amee takk tamit ceebu ginaar ngay togg te tey jii bu ma la ko toggaloon tamit bana macha allah parce que man damaa yàgg a fréquenté ay mère man de bu ma nekkee xale laa doon fréquenté ay mère daan nañu bi togg. su ma dem di dem di toog yi daan demee du xaalis de sama bëgg-bëgg la da ngay gis sama mag ngi nii toog su may dem sama yaram ay mat yow bu ndaw ngay dem di àllamee ma hmm. damaa bëgg togg bàyyi ma dem togg même suñu ko sax la toggalee da ngay kontaan parce que togg bi daa nekk si man da ngay gis rek su ma koy def rek activité may àndal wala bu ma tey ji programme du ma lekk deux jours tant que événement bi jeexul ñoom dañ may forcé dinaa ma lekkal mais man toog programme bi réussir rek moom ma ñoom parce que nit ki yëkkati xaalis am jox la ñu la defar kooku dalaa sas lu rëy waaw te tamit maa ngi remercier maire bi ma jàngal togg moom ko tudd maire Samb maire Samb maa ngi koy remercier bu baax a baax xeebu ma benn yoon dañ daan dem ay ay fu nekk la dem ay grand mba kër demee mënoo tima toggal ay 30 grand dama koy jox ni ma mati defal ko benn saa yi mag la ñuy bu buñu demee ni ma mati defaral moom mais mag la mag lu bari moom du ko mun du paree nga am xale boo xam ne da Ya, kena tob ay even mayo, lima ko mamas parce que sama tante boobu noonu ma lay wax day am événement ñaar programme mu yëkkati benn bi jox ma léegi premier bi njëkkee dem si programme bi moom géej waa la may togg Kër Massa système ay séeréer laa doon toggal ceeb ñu xar ak nag ma war mis bi ginaar man kese léegi mu yóbbu ñu waxaale maa ngi moom ba ñu làkkante séeréer di ma jëw xam nga la yaakaar ni dégguma leen man ma bañ leen a tontu parce que liggéey mënu ànd ak wax yow ngay jëf ñoom ñu gis yow tant que jëfoo Sénégal moom noonu la tant jëfoo ñoom booy wax sax duñu lijjanti yow li ngay wax ma ne pat rek ñu may xeeb affaire ma sa robe bu ñu may xeeb naan waa xale bi la ñu andi xale la bu mën a togg lii yëpp pat rek ñoo xool sama machine waan dafa sama équipe ba mu baax dem ma xëyaat ànd ak sama benn xale bu ak sama raxaskat sama équipe ñu dem ñu togg xeeb ba mu normal bi ma rosee premier manab rek dañ doon lakkandi na a fela ñu koy wax ci séeréer léegi ma toog bu trois mbana ñu pare mu waa yow xale bi xale nga wala mag man leen ma xale la ñu ma yaa togg mën a bi yow séeréer la ñu naan ceeb bi neex na man leen maa ko togg te kenn jàppalew ma waaw tamit mariage yëmbal kooku tamit jox ma mariage bi yëpp maa dem duggi toggee samay barget jël sama oto ko defal samay lakos ànd ak sama sama équipe laa àndaloon ñoom ñoo servi man maa defal samay barget ba mu def di sama table waaye Iba Diop la anu, kan kan tudd yëmbal tamit jox na programme ak événement kër mbay xamante ba si tonton Seydou kooku lu ko xew la man maa ko toggal gis nga bi ñu ko tuddee kii gàmmo gi man maa ko toggal ay waar na fi tamit tuur famille avant ñu maa ko toggal tamit ceeb jaga yu neex macha allah moom mu kontaan trop moom jabaram maa ngi leen di nuyu tamit moom tamit jàppale na ma trop parce que tey jii su ma demee ba mel neen ne moom la moom tonton Ba jàppale la ma trop sa maa ngi koy sant bu baax a xaw ma ñoom ñu bañ a pare de mais man sama xol réer na lu nekk man pare naa pour ànd ak ñoom ñu jàppalante ñu liggéey parce que ñu ñëpp benn lañ ñu fondé famille ba lii mun naa dem ba nekk boo xam ne fii ko doon séen sax du egg waaw man pare naa pour liggéey ak ñoom te lu ma si gis bu baax leen ko pour ñoom ñu leen yoon di nuyu incha allah am naa compte Facebook am naa compte TikTok samay adresse

jébbal ko nag ñi nga xam ni ñooy nattangoo étudiant ak étudiantam yi nga xam ni ñoo yendu ci centre bi niki noonu nag la daal di jël li nga xam ni mooy plat yi yekk ak moom ci salle bi dressé daal di jox ñi nga xam ni ñooy directeur bi ak euh, ay collègue am ñu daal di def première dégistation pour joxe seen avis ci plat du jour bi nga xam ni moom la dippee ceebu jaga डायरेक्टर से रिएक्शन लल गुबी जल लल्ले जो है Mhm. ci biir dégustation boobu nag ki nga xam ni grande sœuram la moom nag ñëwoon na jàppale ko ci liggéey bi di wuyoo ci turu Mariam Thioune moom nag gannaaw ba nga xamante ni ji ñam na lii di plat du jour bi nga xam ni moom la rakkam togg apprécié na ko teg ci nag yëkkati ay kàddu yu seede jëme ko ci rakkam ji nga xam ni mooy Mati ñu gën ko xam ci Tima traiteur bi Thank you. bu bëri activité ba soobu ci benn affaire dañ daan toog ay dafa dem nekk sa yaay mu nekk jigéen su ma ko moom xam ne sorry sorry sorry xool ba am solo la dafa am solo dafa jàng dafa am solo ndax soo yaa bu dee maa waa ñu ngi si soo ñoo ngi remercier ñëpp parce que ñii dañu ko jàppale te rawatina professeur bi ak directeur bi ñoo ngi leen remercier ñoom ñëpp seen taxawaay moo tax lii nii yëpp mënoon nañu teewal bu la neexee ñu déglu waaj baax na yàgg na affaire bi mu tardé tardé daal ñun ñëpp ñoo ngi kontaan nañu ñu ngi leen remercier ñëpp merci beaucoup waaye yow tamit ñu ngi remercier merci gannaaw séance de dégustation bi nga xam ni kii di Abdourahmane Fall nekk président de la commission de l'éducation NTJ def na ko ak ay nattangoom ngir joxe seen gis-gis ci cafka plat du jour bi kii di Mati Traiteur ak euh, ñi mu àndaloon ci liggéey bi daal nañuy séddale li nga xam ne nag mooy añ bi seen nattangoo étudiant ak étudiante yi nga xam ni ñoo yendu ci centre bi gaay bi hmm, Coloca dele, coloca uma legraita, coloca uma legraita, coloca. que na rede. Aí eu vou apreciar, viu? Né, né. Já me mama chala. Eu só para no grupo. Que ver. Que prepara. Eu vou tomar um pouquinho de bebida. Eu vou tomar. Vou tirar ele do ma rek bëgg ma jël. maa ngi nuyu nag borom jën yu bari sama xale bi nekk si garage bi Ibra Issa Issa maa ngi koy bu baax mm-hmm. maa ngi bëgg am ak moom benn événement sax ñu war a dem ba Saly mm-hmm. ma a sotti foofu mu war a traité affaire yi mm-hmm. yal sotti su ko defee maa ngi am benn communion bu ma a toog tamit incha allah maa ngi nuyu sama njaago bu ñaaw boobu Angélique incha maa ngi lay bu baax a baax wuy leen ñu nuyu sama jëkkër ji eh ñu nuyu sama jëkkër ji nag maa ngi nuyu sama jëkkër ji ji ma na gannaaw ba ñu añee <laughs> ba pare raxas seeni dàpp rangé ko kii di Mati Cuun ñu gën ko xam ci Tima traiteur daal na yëkk ci ay kàddu cant ak ngërëm jagleel ka képp ko nga xam ni jàpp na ci bés bi waaye itam ñi nga xam ni saa su ne ñu ngi koy encouragé ngir mu am réussite ci métier bi nga xam ni da ko def ci xolom muy métier traiteur ak pâtisserie ginnaaw ba ma yàlla jàppale ma bu baax a mu bàyyi lépp ñoom maa ngi koy remercier avant tout kontaan naa trop yàlla rek laa lay wax yàlla na ma la yàlla fayal waaw di ñaan li ci séntu yàlla a bañ a commencé di liggéey ba tey tiset la commencé ak man dama ko defaral soo demee suñu kër instant fekk table yi bëri yëpp moom koy defaral la kosu mi ngi liggéeyee Dakar maa ngi koy remercier di remercier sama équipe Timatirite euh, Daaw Bour Omar ñoom Fama ñëpp maa di remercier ñooñu amul seen fay lépp ba méttee ba tey maa ñoom ñooy ànd fu ñu jëm fu ma jëm rek dañ may topp waaw naroon nañoo ñëw tey sax mais fii moo sori moo tax ñu bañ leen a sonal te tamit dañuy jàng moo tax. boobu ma leen a sol waaw mais maa leen di remercier bu baax waa Kër Massar nag bu baax a sama dëkkandoo yëpp maa leen di remercier waaw ak ñoom sama ñoom yaay ñoom tànn day fàtte ñoom tànn kine ñoom ñëpp maa leen di sama mag ñoom Abdou Diouf tamit nag wax dëgg sama mag jooju moo tax ñun jooju ñu pap Abdou Diouf lépp rek bu ko suba ba ngoon jot jàppale nañu yiir nañu sutura ñu yiir nañu taxaw foo xam ne place papa la allah maa ngi koy remercier ay papa Thioune démb ñoom ñëpp si jàpp ne maa ngi nuyu sama papa nag yoo xam bu baax a baax waaw ak tamit maa ngi koy sant di ko gërëm rek moom tamit coiffeuse la liggéeyam bi yàlla jàppale ko si mu jëm si kaw si kanam assumé si école mais dafa ñàkk ñaan assumé asu lépp loo xam ne dugg naa si moom dina ma xelal dina ma matti li ngay def tey saa si danaa ma mat dangaa asu bàyyi ma milieu bi ma nekk su ma nëbbutoo nit ma xam moom sama mag ji ñooy ma leen bàyyi leen ma rek sama ñu xam ci maa nan mu ne mais à chaque fois daf ma bëgg asu te bi nga tamit bu baax sama mag bi nekk kër ngaa tamit koo di jooy dama bëri histoire <laughs> balaa mooy

kon mbokk ñi sétane di and ak ñun sa suné ci suñuy programme ci sen site préféré Océan 24 TV Dakar tey nak li lañ leen andiloon jëlé ko ci centre de formation professionnelle bi ñu NTJ nouvelle type de jeunesse nekk ci cité Sokabek ci commune Tivaouane Peul ñàgg àndoon ceek euh, soxna Mati Thion ñu gën ko xam ci Tima traiteur ak équipe ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen fidélité di leen jox euh, dig daje ci beneen numéro.